li yombul ndeysaan li yombul ndeysaan 100 pour cent Mbayang Boy Dollar yom Grand Babou Sarr ah Gourom Ndong yaa ngi si biir waaw waaw Moussa Thiam ñi nga xam ne ndeysaan ñooy sampai yang Loum ñi nga xam ne ndeysaan ñooy 100 bayang cent Mbayang Loum ñi nga fu muy ñu ko cey kooku Boy Dolara ah. garage Babou Sarr 100 pour cent Mbaye ak Loum bëgg naa leen ah borom doom yaa ngi si biir bu jigéen bi xaw ma turam naa la kii mooy Boy Dolara ah. ziare naa la ndeysaan xale yi Mbaye kër grand Babou Sarr lii kenn amul fayam ndeysaan nuralu bi baax na neex na ndeysaan ak seen bulo bi acca 100 pour cent Ndiom fii ci Ndangane Sambou lay xewee ndeysaan ñi nga xam ne ndeysaan ñooy bëggee mbayang lum yéen a ngi koy gisandoo ndeysaan ah ñu def seen tisat bi dugg ñëw toog ndeysaan ah VIP acca jaayef sawa gaay ah.